mais lii lu bax la pour man sax dafa wara continuer parce que ak fi ni mu mel moy lolu agression bi lepp dal amul sécurité Kër Massar moy lolu mais instant bi ak fi ni ko vidéo ni dafa wara continuer même bu feebar bi jeexee man lolu la gis man façon ça me fait pas peur tiit naa ci ben côté parce mais man tout le temps damay tëju du ma bu ci ñi génn kay lay metti mais mesure ñu jël lu bax la fi moom niñ leen dëgër piree ni dañ ko wara di continuer même bu feebar bi passé loolu mooy yoon ci li ma gis. Ah, effectivement mesure moom suñ koy jël saa su rek day fekk looloo war maanaam fii li fi daan eh, daje ci mbooloo. jéggi na dayoo Kër Massar moom boo ko déggee rek mooy mbooloo donc lii moom prévention bu macha allah bu mucc ayib la lii moom alhamdulilah lii moom xam naa ni peut-être su mënul fànq lépp tamit dana am lu mu fànq parce que dajaloo bi fi daan am amu fi tey. nit ñi teg nit ñi nañ ci nit ñi nañ ci parce que comme foo dégg ne nga cas am na cas ya fa nekk seen xel dootul dal c'est normal. situation bu fekkee dafa wàññeeku mesure day wàññeeku bu dee situation dafa yokk mesure day yokk. boo xoolee fii ni fiy dajaloo ñoo bari waaw ñi fiy dajaloo ñoo bari ba tax na moom lii ñuy def nii am na solo lool quoi. waaw waa baara nañu moom wax dëgg yàlla parce que benn instant xam nga ci ngay ñëw pour taxale am ci weccit mën a yóbbu sa kër xam waaw loolu moo tax quoi wax dëgg yàlla baara nañu waa nguur gi de bu ñu sañoon wax dëgg yàlla parce que chaque jour ñi ngi wax man maa ngi dégg rek chaque jour ay nit ñi dinañ ñu jàppale dinañ ñu mais gisuñu dara. wax dëgg yàlla gisuñu dara même gars yi fi ne yëpp boo xoolee ay borom kër dong fi nekk waaw muy ci mbaar yi muy ci maquette bi fële ñëpp ay borom kër rek a fa ne mais pour ñëw lijjanti dara sax day metti ci ñoom depuis affaire bi ba mu amee ba léegi waaw 6 heures ngay wàcc boo wàccee war am oto pour dem mais mooy loolu waaw doy na waar daal en tout cas mais nguur gi moom war nañ ñoo jàppale wax dëgg yàlla.